Euh, actuellement sax si lañ nekk ñu gis euh, démb rek euh, suñu mbokk Gambien yi. Mhm. gagné nañ seen match bi. Sénégal am ci position bu rëy. waaw nga xamante ne nii instant Poula moom moo jël paie. waaw diggante ñaari pays yii nii nga xamante ne mooy Sénégal ak Gambie ñu gis Sénégal nu mu ci Coupe d'Afrique bi ak Gambie. Mhm. boobu ban jàngat nga si am. dama la fàtte laaj sa tur nan nga tudd. man Ibrahima. Ibrahima ma wax la tey loo xam ne fii la sa site bi di jaaree àddina ñëpp xam ko. Mhm. bindal li ma la wax yaa ngi ñëw ba su àjjuma diggante bi nga xam ne ñu ngi waaj pour julli tisbaar. d'accord Ibrahima fii nañu wax ak yow. Mhm. tey bés bi tey ban jour la. du la Ibrahima tey la vendredi 21. Mhm. janvier 2022. 2022 Ibrahima est-ce que xam ne euh, coupe bi dina fanaan si Sénégal. ah waaw maa la wax loolu. du sarax. du ñaan. Mhm. du mën football. lan la kon man mi maa ko jëli. may ko waa senegal man. yow yaay jëli coupe bi may ko man maay man maay dem jëli coupe ci baatin. Mhm. may ko waa senegal li ma la wax nii danga ko bind. te bés bu loolu amee nanga nga ko dagg génn date bi nanga nga ko date du sarax. Mhm. nel benn. waaw du ñaan. nel ñaar. du mën football nel ñett. man maa dem. yow yaa dem jëli man maa dem ci yoonu baatin. Mhm. fekk coupe bi fu mu nekk ci Cameroun. Mhm. jël ko jox ko Lions yi. ak Sénégal bu fu mu toll nii si. dama ne ma ne xam nga fu ne nii ku ñu dóor da ngay toog. fu ñu dóor da ngay toog li si Sénégal kenn du ko dóorati. ah match bii di ñëw day gagné. dama ne Sénégal coupe waaye bu gagné wul day ñibbisi. d' accord léegi fu mu ne nii ku ñu la. waaw warak mhm. amul dóor ay calcul des na kii de. dóor la comme que Algérie ñibbi na dama ne Sénégal bi day ñëw. dañ koy yóbbu ci stade bu bees bi Macky la war a inauguré. Mhm. teg ko fa peuple bi ñoo fekk ko. man maa ko maye man. te 2024 maay xool ku ma neex ci chef ci ci opposition bi ak ci gouvernement bi ma fal la. man maa ko man man ah. man yàlla may na ma priorité bi 2022. lancé nga sénégalais yi defi de. bu kenn critiqué bu kenn ŋàññ. d' accord lu garaaw laa lay wax. dañoo ñàkk ay bakkan yu bëri. waaw ci diggante deux mille vingt et ay kilifa yu bëri dem senegal jooy lu bari est xam nga ne li bata joolaa defoon ci Sénégal mhm. ba ñu ñàkk suñu njaboot gu bëri mhm. lu mel noonu am na ci covid bi ci covid bi yàlla du la teg naqar ñaari yoon ñeenti yoon kilifa yu bëri dem nañu mhm. foofu ñu bëgg bu gars yi góorgóorloo tuuti nag affaire bi gaaw bu ñu yéexee mu jëli ko te man maa koy indi amul ay seetkat amul voyant amul voyante amul reine voyante amul prince amul leneen. yow yaa koy jël man maa koy jëlee indi ko. ci kattanu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yàlla Yeesu Kirista borom xel mu sell mi coupe bi day ñëw. kon daal même ah même xanaa sénégalais même amul waaye <laughs> Ibrahima dama la wax dafa leer yow tamit. sarax. même bu ñu tegoon ay bu ñu ibbi woon góol bu fa bu nekkul <laughs> mu am quatre défenseurs man maa ne Sénégal day gagné coupe bi day ñëw ah. Sénégalais yaa ngi déglu daal xam naa. adduna ñoo may déglu. le Sénégal va gagner la Coupe d'Afrique. incha allah pas par les moyens mystiques ni par des sacrifices des hommes. c'est moi qui va donner le Sénégal pour la première fois Coupe d'Afrique et c'est moi qui va choisir le prochain. Mm -hmm. futur président de la République du Sénégal 2024 moi Kouta artiste comédien. d'accord incha mais mais mais Ngagne bi di Ngagne Aliou Cissé yow la ban ban gis-gis. luñ wax tooñ ko. man maa ko bëggee nii. Hmm. man maa ko bëggee nii. yaa ko bëggee man du ma ay waa ji fi nekkoon naan damay xar géej gi de. waxuma loolu de. dama ne damay jëli coupe bi may ko Sénégal. laajuma sarax laajuma dara. Aliou Cissé buñ koo wax dara. Hmm. ku ci wax Aliou Cissé dara di nga am gàcce de xam nga tax nga am gàcce. Hmm. parce que dana ñëw aéroport nga ne ko ne ko ngar meew. allah du moom de du Sadio Mané de. man yow yow Kouthia Show la maa ko indi. te bi moo koy wax ñëpp découragé nañu. d'accord waxtaan bi nag ñu ngi ko def après Sénégal Malawi ah. ko gaay xam. Mhm. discussion bi après Sénégal Malawi nañ ko def de. xaar xaaruñu ba demi final def ko de parce que après sawaay waay day dagg lii génn ko ci internet bi mm-hmm. damay bañ na ñu ne Kouthia dafa dem ba demi final mm-hmm. ak final di soog wax bi ma koy wax Sénégal ak Malawi dañoo am match nul match nul waaw kenn faalatu leen ci laa génn wax wax ji avant wax naa ko pendant bi wax naa ko d'accord boobu moom xam naa sénégalais yi àdduna yëpp dégg nañ ko incha allah am nañ njort bu baax ne coupe bi dina ñëw allah Sénégal